salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen nuyu baax baax leen ziar ñu ngi seet si euh, kii di magu di magu soo itam di magu itam Jules Baldé Junior na nga def waaw sant yàlla bu baax gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonante bi waaw gërëm Serigne Touba di ñaan Serigne Mountakha mu yàgg bi lool te ànd ak wér waaw njabootu Serigne yëpp ànd yàgg bi lool te ànd di wér di ñaanal suñu sang Serigne Sall ndigal suñu mu yàgg bi lool te ànd ak di santaat bu baax a baax a baax ci laaj yi ngeen ñu fas yéene laaj waaw. lan ngay wax si Jules Baldé Junior voilà témoignage ban témoignage daal la bi may wax ci Jules Baldé Junior dana bari waaw dina bari du bari waaw dafa nekk euh, rakk sës ci man rëkk waaw ñu bokk lépp mu doon kenn ci man waaw ñu bokk lépp daanaka waaw yaayam di sama bàjjen papam di sama nijaay waaw ñu bokk benn dëkk bokk benn village duggandoo lépp defoon duggandoo néegu góor daanaka mu nekk rakk joo xam na nii bu ñuy wax ci gàttal man maa ko yar ndax man ak moom ñoo bokk benn Pikine bi ñu nekkoon ndax man Pikine laa jàngee fa laa yaroo ba mag sam pap alaaj Lamine këram laa nekkoon fala laa ba yàlla def ma jóge fa ñëw Parcelles Assainies waaw Abibulaay daal lima mën a wax daal moom mooy waaw ñun daal ñun mbokk yi waaw ñun ñàkk nañu waaye xam naa ne waa Pikine a gën a ñàkk waaw daal laaj ci mën a wax waaw. Euh, Habiboulaye ñu li mu mën a wax daal moom mooy ci wàllu jàppale gi waaw du mën a kenn jàppale waaye li mu ci mën a wax daal ci gàttal jàppale gi dafa des waaw jàppale gi des na lool ndax euh, amaana man ci xeexoo bi mu amee man Habib Habib ñoo ko sang Habib ñun ñoo ko suul bi muy tawat mun naa ne chaque deux jours dañ daan déggante ci whatsapp man ak moom ndax bon sama sama liggéey moo ma permettre loon may mën a nekk moom saa su ne ndax man maa ngi woon ci àll bi maa ngi woon Casamance mais chaque deux jours daal nañu déggante téléphone mais li ma wax ci jàppale moom mooy boo ma laajee ci wàllu jëm ci wàllu jàppale dama naan jàppale ki dafa des ndax lañ fi ñu ko waroon taxaw dëggantaan taxawuñu ko fa mbokk yi moom ñi nga xam ne moom la ñu bokkal deret bokk ak moom benn dëkk li leen warloo woon ci moom lépp def nañ wax ji wax ji moom mooy seen loxo dafa jotul seen ginnaaw waaye comme moom dafa nekkoon un sportif de haut niveau nekkoon ci làmb ji amoon yaakaar ci làmb ji bëggoon cee dimbale njabootam comme ni ci ni ko ñeneen ñi ñuy waxee gars yi waroon nañ koo jàppale ba tey ji tey mu bokkaat suñu ñii nekkaat suñu suñu biir ndax làmb dafa noon loo xam ne ni man senegal des fois euh, seeni mbir dafa may xaw a jaaxal ndax nit dana dana nekk ci tolof tolof soxla ndimbal duñ ko jàppale dañ koy caaxaane di ko sàggane ba mu dee waaye man day ah damay wax rek ndax sëriñ Tuubaa rek a tax sant naa ay xaritam ñi nga xam ne ñoo doon fanaan ak moom sant sama benn nijaay joo xam ne moom la ñuy wax Sékou Sagna ndax waaw boole na ci lu ko naqari ak lu ko neex ndax bokk bi mu bokk ak moom bu xale yi ay xaritam fanaanee trois jours moom dana fanaan trois jours waaw mais man daal li ma mën a wax ci gàttal daal moom mooy fi may commencé mooy état wu Sénégal te ki may njëkk a joxoñ baraamu tuuma moom mooy ministre du sport moom mooy Matar Ba dañoo sàgganee xale ndax loo xam ne koo xam ne nii bon def nañ premier soin yi ñu waroon def ci moom yóbbu nañ ko Tunisie mu ñëw tànk bi ñu waroon a faj ci moom ñu faj ko ba tànk bi tane beneen tànk bi jël beneen tànk bi mu jëlee automatiquement jamono jooju waruñu woon sax xaar ba yëf dem ba toll fi mu toll nii ba yàlla def li gën ndax man dama dama am lu ma naqari yëf yi bi mu xewee boobu léegi kenn dégguma ma wax te tey ji bu budul woon li ma ñëw ci place sama rakk ji ni tey doo leen ma dégg ma li ma wax ndax dama am sama xol dafa dama am lu ma naqar ci sama biir xol. ñëpp mooy suñu mag Omar Diatta mooy suñu mag. waaw ñu waruñoo wax sax jiitu mais mooy suñu mag mooy magu soo di sama mag am de barke ak yilif ñu ñun ñëpp muy suñu kilifa am de comme moom bu waxee tey ñun dañoo ñàkk dafa yéex a ñëw moo tax mais ñun waru woon moom moo war a lu la ci xale bi xam na ko mbokkam la am de moom muy suñu mag seen ma ne fa ay vingt moom muy sama ak ñoom vie ñu tukki États-Unis euh, Espagne kon moom bu waxee lu la wax lépp la ci xam ci xale bi ñun tey fu ñu ci xamee dara yàlla ak moom a tax ak ñoom kii moom moo tax barki alxuraan ko dem continue waaw. daa wax ji moom mooy li ma ci gën a naqari moom mooy démb bi ma teewee ci sarax si li fa gis ak li ma fa dégg non dafa maa naqari bu mujj gi mënu ma faa toog. maanaam li fa nit ñi daan indi ci koppar ndax nit dana feebar. gaa dañuy jàpp ne nit bu feebaree xaalis a koy faj déedéet nit dana feebar du soxla xaalis li xaritam bi wax rek témoignage bi xaritam boobu wax ki jóge Ndar man ci loolu laay duggaat ndax li mu wax barki Serigne Touba bu ko ay njegeñaalam comme par exemple ñi mu bokkoonoon dëkk Pikine ak ñenn ñi nga xam ne daanaka moom mooy ay entourage am bu doon dañ ko doon def cinquante personnes bu ñu xëy chaque jour ñëw ci kër gi fekk fa mu toog ñu ne ko Habib naka sa yaram ma yaa ngi ndax yaa ngi naka sa yaram noo def xaw a waxtaan ak moom rek billaahi lazi laa ilaaha illaa hu abdullah dina jóg waaye nit bu noo bàyyi ba mu dee ah nga yëkkati ay kii jël nag ah ceeb cere yeeg loolu yëpp lu baax la c'est bien beau mais dafa amoon foo xam ne ni fa lañ ko doon xaar ci ñoom waaye dañuy sant yàlla ndax ay jullit lañu waaw ba pare doon it ay taalibe Sëriñ Tuubaa comme moom dama ko doone man day waaw man day damaa sant bu baax a baax a baax ci bokk gi ma bokk ak mom ak la ma fekk ci ci jour jouru dëjëm ndax man sama wàllu bopp maa ngi ñaan yàlla bu ma dee ndax danaa am lu mel ni moom la mu ñun ñoo ko sang ñun ñoo ko génnee ci morgue bi ñoo ko jullee ñoo ko jóbelu suñu borom waaw neexul nag de waaye dañ ci sant bu baax a baax a baax a baax waaye man daal li ma gënaloon moo may li may ñaaxaat moo may damay ñaaxaat jeunesse bi nga xam ne ñoo nekk ci làmb ji ak ñi nekk Pikine maa ngi leen di sant ñi nga xam ne ñoo doon sonn ci moom maa leen di sant maa ngi leen di gërëm au nom di famille nag laa koy wax famille Diatta ak famille Sagna ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di sant nag sama rakk yu jigéen ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom ci kër gi ñoom dabalaay maa ngi leen di sant bu baax ndax ay jàmbaar lañu li waroon seen diggante ak moom yëpp def nañ ko ndax gis nañ fi nit bokk ak nit ndey ak baay tawat say mbokk yëpp daw la waaye Abibulaay gàcce gaalaama ay bokkam nañ koo taxaw waaw taxaw nañ ko ba mu génn àdduna su ma naree xóotal na gën a gudd waaye waaw sant naa bu baax a baax di gërëm nag sama waa famille yëpp waa jatog jëpp jatog ñëpp waaw cinq quartiers yi nekk biir jatog ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax gis nañ seen taxawaay waaw taxam lu ñu ko benn yoon ci commencement dëj bi ba dëj bi fa mu jeexee di gërëmaat nag encore une fois sama papa ndax fu mu toll nii mag la amaana li mu def ci dëj bi waru garam la ndax dafa taxaw taxaw baay dañ koy sant bu baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wër mooy turandoo Socé soo kaana mi turandoom la Lamin sam papa maa ngi koy ñaanal bu baax di ñaanal sama yeneen rakk yi ñoom Maam Baara Bas Eliman di ñaanal sama grand apo ndax ñoom ñëpp gis naa seen taxawaay ci affaire bi waaw sant nañ ci bu baax a baax a baax a baax wax ji moom mooy mën nañ fee wax ci moom ba suba du jeex ndax Abibulaay géej la barki Serigne Touba géej li soudeur yi wax bi ñu nekkee ci lël bi daanaka amul lu ñu séparé soudeur da daan tëdd nii mu tëdd ci wetu soudeur man maa tëdd ci wetam nii ñu doon waxtaan lu bari mu am ay projet yoo xam ne ni moom ci wàllu boppam ay projet yoo xam ne yu mu amoon diggeeg mook ak waa dëkkam barke Serigne Bamba bëggoon a dimbale yaayam nag ndax sama bàjjen dafa sonn ci ay doomam sonn ci ay jabootam man wax na waxuma ko ngir damay wax nii rek lu ma fekke laay wax ndax ñoom ñoo ma bi may nekk xale ba ni ma màggee bi may nekk xale Pikine jamono jooju ni melul ni mu mel nii teg na pôle bi ci ginnaawam ay ay tool la woon toolu ceeb sam papa bi ma lay wax nii dafa amoon ay toolu ceeb daanaka maire yi fa lañ naan dem di ut ay jën jën yu sew di ko jaay sam bàjjen jaay na lingom jaay na dëwtiir ndax njaboot gi jaay na bale ba fi may wax ak yow nii feebar Abibulaay bi saa yu génnee ci buntu kër gi lay teg moom la daan jaay te kooku yaakaar loolu kenn ku dul doomam ji waaye ñu ngi koy ñaanal ci barke Serigne Bamba mi nga xam ne moom la ñu yaakaar waaw ñu moom xam na ne sax Habib ma nga àjjana waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla na suuf sedd ci kawam suñu borom xaare ko ci àjjana yi gën a kawi waaw ñun ñu fi des waaw suñu borom may ñu wér ba yéene gi nga xamoon moom la amoon ci ci wéyjuram waaw ñu motalee ko ci barke Serigne Touba waaw ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm waaw ak Sosé ak ñeneen ñi fi nekk ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax man pour la première fois ma wax ndax te ñoom ñi ñoom ñoom ma wax loo waaw te Abibulaay it moo taxit ma wax ndax rakk la ci man sës ci man rëkk te musuma rëkk waaw kontaan nañ ci moom lool te bësam ko fa teewit waaw di nga kontaan ci moom waaw sant nañ bu baax di gërëm bu baax a baax jaajëf